فاز الذين حافظوا على الصيام زين بهم لخباب للإيام فاز الذين أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكي جلدي دي جاكار لغنون أجد دي جسون كادو فني مانا نك بوكي طالبي يب نوغلين دي نيو لين زيارة دي لين وخ asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni nu ko baaxoo woon defe ci njëlbeenu weeru koor wu ne nu toog di fàttalente ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi war-war yi war ci nit ku jóg ngir soobu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak warwar war yi war ci nit ku jóg fas yéene topp tariqatu cheikh alxadim radiallahu taala anhu war yooyu mooy gëstu dëgg-dëggi lamu jamono bu ne lay dëgg-dëggi mbir ba nga di ko gëstu di ko jéem a bàyyi xel di jéem a teg sa tànk foofa jamono bu ne ngay jàng ndax nit jamono bu ne war nay jël bind bu yees wala muy toog di nafar la mu weesu woon di ko segg di ko settantal lu mu jës ci gannaawam ludul mu set num ko faxase ba mu set bépp bind bu yees bu mu dolliku muy jëf yu rafet mu war a def te dawu ko def mu jéem kem kàttanam ngir jëf-jëf jooje loolu lépp jamono bu ne dafa war ab jullit war taalibe murit ci ay yëngutoom yu ne moo tax tey ci njëlbeenu weeru koor ñu di ci indi ay bind yoo xam ni danañu fàttali ñu yonente bi sallallahu alayhi wa daan doxe moo ki saxaabaam dinu wonit melokaan yi nga xam ni rafet lu nañu ci ab jullit mu mel ko loolu buñ ci jëlee ay bind danañ indi it ay bind yoo xam ni sëriñ Tuubaa ni mu daan dunde weeru koor ak ni mu ko jàppe woon ak ni mu ko fonke woon ak ni ko jàppaloo woon nit ñi ak jëf yu rëy ya mu ci daan jëf yëpp fas nañu ko yéene waxtaani ci biir weer wi bu nu ko dogalub sunu borom maye waaye kon ñu tàmbalee ci wax ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax dañ jële ko ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa def saa bu rajab masaan dugg dafay wax ne yàlla yàlla yàlla na nga nu barkeelal ci rajab ak ci chaabaan te yeggalenu ci ramadan loolu ak ñaan la goo xam ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam daf ko daan ñaan ka ñuy wax albazar ak tabarani yu ñoo ko nettali ñu jële ci beneen saxaabi yu bu ñuy wax abu said al khudri radiallahu anhu mu wax ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu weer yi mooy weeru koor weeru koor mooy weer wi gën a màgg orma fa yàlla xadis boobu bazar moo ko nettali ba tey jëlee nañ ci ibnu mas'ud radiallahu anhu mu wax ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ni sangub weer yi mooy weeru koor waaye sangub bis yi mooy bisub aljumua lépp kon ñu bàyyi xel ni sangub weer yi moo ñuy gane si ñu seet la war ci ay bernde ak teranga suñ digg ak moom ñu fas ko yéene jëf yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ni jaam ñi bu ñu xamoon li nekk ci weeru koor kon samaw xeet danañu mébét at mépp di weeru koor bu ñu xamoon li ci yàlla def ci ay ngëneel ak ki barke danañu mbébét moos at mépp doonoon weeru koor jëli nañ ci ubaada ibnu saamit radiallahu anhu mu wax ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam benn bis wax na te boobu weeru koor teew mu wax ni weeru koor dikkal na leen muy weeru barke boo xam ne yàlla dana leen ci woomalal yàlla dina ci wàcc yërmandeem yàlla dana ci sippi ay ñaawteef yàlla dina ci wuyu ak ñaan ci weer wi ci la yàlla xoole ni ngeen di jëkkante di def lu baax muy muy mu di muy puukaree woon teeg ay malaayikaam ci yéen di wax malaayika yi xool leen sama jaam yi ni ñuy jëkkante ci def lu baax yonent bi ni kon nag na ngeen fexe ba won yàlla ci seen bopp lu baax nangeen ngeen won yàlla ci seen bopp aw yiw ndax kat ki taxee di dëgg mooy ki ki nga xam ni xañeef na ko yërmande yàlla ci biir weeru ko ka taxee di dëgg mooy ki sàggan bañ xañ ko yërmande yàlla ci biir biir weer wi jëlee nañ ci abu said alxudri radiallahu anhu mu wax ba tey ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne woor weeru koor ba ba ñuy àggaat ci weeru koor dafay far li dox ci diggante bi ci ay bàkkaar nit ki bu wooree weeru koor te sellal ko ba ba weeru koor di dikkaat lu fi nekk ci ay bàkkaar weer woowu ngëneel la mën na ko far kon nañ ci gorlu ba jëm ko sellal sun kam katan ñu jël ci ibnu mas'ud ibnu abu sa'id mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis wax na ni bunti sa bunti asamaaw yépp dañ koy ubbi ci guddi gi jëkk ci wéru koor te deesu ko tajaat ba ba àgg ci guddi gi mujj ci wéru koor guddi gi jëkk ci wéru koor ci lañuy ubbi bunti asamaan yi te deesu ko ubaat ba ba ca guddi ga mujj ci weeru koor ñu jële ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu wax ni dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni lii weeru koor la dikk na dañu ci ubbi bunti aljanna di ci tëj bunti safara di ci jéng seytaane yi daal ni ak sori ñeel na nit ki nga xam ni weeru koor dikkal na ko te jéggaluñ ko ci dal ni ana bu ñu ko jéggalul ci weeru koor kon kañ les koy jéggal xadis boobu ak tabaraani yu moo ko solo ca téereem bu ñuy wax al awsat ñu jële ci omar bnu xataab radiallahu mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kiy tudd yàlla ci weeru koor des na ko jéggal waaye kuy ñaan yàlla ci weeru koor it du sooy maanaam du du perte fokk yàlla dana wuyu ak ñaanam xadis boobu ak tabaraaniyu moo ko solo bokk na ci li ñuy xamee rëyub weeru koor ak màggug jëmmi woor ci boppam dafa bari Euh, ci xeeti bàkkaar loo xam ne bu ko nit ki defee euh, la ko mën a far mooy koor ndax nit bu reyee nit ci kaw njuumte sunu borom dafay wax ni fa tahriiru raqabatin mu'mina mooy na goreel ab jaam bu doon ab julit wadiyatun musallamatun ila ahli waaye day wax na ni bu amut loolu nag fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayn lay wax daal di waaye nag bu amut ab jaam bu mu goreel na woor ñaari weer yu tegaloo loolu mooy far bakkaar boobu yi mooy taxaw taxawaayu loolu yi mu waroon def te amu ko naka noonu nit ki bu giñee ni danaa def nangam yàlla dogal deful loola mu giñ ci yàlla ni danaa def nangam yàlla dogal mënu ko defu ko la mën a far bakkaarum giñ loolee bata yàlla daf saa boole woor te mooy na lele fukki miskin bu fekkee amu ko nag fa siyaam thalaasati ayaamin suñu borom wax na woor ñetti fan daal ni dalika kafaaratu aymanikum ida xalaftum naka noonu ci zihar zihar mooy nit ku fab soxnaam nirowle ko ak ku ko aram loolu bu ko defee lay tax soxna soo see daganaat ci moom euh, ba sunu borom waxee kafaar yañ ca war a def dafa wax ne bu ko mënut na woor ñaari weer yu tegaloo mu la mën a far bàkkaar loolu yi ba tax mën a jaxasoo ak soxna si kon koor bari na ay mbir yoo xam ni ci diine buñ la ko tegee ci alal joo war a joxe te amoo ko koor moo ko mën a wutu naka noonu kuy aj dañuy bañ ca xaram bi wër kaaba gi ku fi rey dara bëgguñ nga rey fi ganaar bëgguñ nga rey fi am xëti bëgguñ nga rey fi am picc bu yàlla dogalee nga rey fa dara diine daf lay digal ni la lu toll ni loolee nga rey ci juri kër yi na ko wut kaffaaraa ko rey goog nga rey rab waaye boo amul lool yi nga war a jël rey ko ngir kaffaaraa ko yi dañ lay digal nga woor ay fan kon koor bari na loo xam ni euh, daf koo taxawee ci diine ci fànn ko ñu bàyyi xel bu baax it ni koor fokk dañuy fanaanoo yéene ji ci guddi gi balaa bët set yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ni képp ku fanaanoowul yéene ci guddi gi amul koor kon nit ki fokk jëkk fajar war naa yéene koor woor bis bi waaye bu demee bu julli fajar ba noppi bis boobu woor ko dutu mën a te nekk bu ko wooree it ab xiif rekk lay tekki waaye du tekki koor koor pakk la pakk nag mooy lu lay fegal aw lu waroon a agsi ci yow lu mel ni daanañ yor ay pakk di ko fegoo ay jaasi ci jamonoy guerre nga xam ne bu ñu yëkkatee jaasi ji fekk nga yor pakk weñ ci sa loxo mu fekk ko ba bu ñëwee daal ci ba du agsi ci mu ne koor ab pakk la dafay fegal nit ki yu bare bare yonente bi euh, am na xadis bu gudd boo xam ni Muaas ibnu Jabal la ci doon waxal waaye wax na ci biir ni ko assawmu junnatun wa sadaqatu tukaffiru alxatiata wa qiyaamu rajuli fi jawfi lleyl wax na ko ni ko koor pakk la waaye sarxe dana far ay ñaawteef nit ki mën naa def lu ñaaw waaye bu sarxee ñaawteef boobu yàlla mën na ko koo faral naka noonu taxaw guddi dinaa fi la dafa bokk ci yi far ay ñaawteef bu dee koor nag pakk la mooy dafay dox diggante nit ki ak def ñaawteef sarax day fekk ñaawteef bu am ba noppi mu far ko waaye koor pakk la dafay dox diggante nit ki ak mu def ay ñaawteef jële nañ ci ata ibnu abi rabah bi muy firi ayab alquran bi wax ne yow ma tubla sarairu moom dafa wax ne assarair mooy koor ak julli ak sangu janaba dan yooyu ñooy assarair sarair mooy ay mbóot te suñu borom dafa wax dem ba yëpp yi nëbb woon dees na ko feeñal mu wax ni moom déggin wi mu ci am mooy koor ak julli ak sangu farata ndax nit ki bu ne cell ni woor naa yàlla rekk a xam kenn mënu ko lu ñu te fekk mën naa làqutu ci ab néeg naan bu màndi mbaa mu làqutu ci ab néeg lekk ba regg wommi ku dikk ci kanamu nit ñi ni woor naa kenn du ko mën a lijjanti waaye nag am na bis boo xam ni buñ ca àggee yàlla ni dara umputoon ka ka tëju woon cib néeg lekk ba rek gannaan bu mande ba noppi ni woor na bés boobu secret boobu dana feeñ naka noonu julli waxtu julli bu jotee nit ñi liñ mën a seere mooy nit ki ñu gis mu julli bu ñu julli nga ni julli naa ñoom wàccoon nañoo yow waaye bisa ngi ñëw boo xam ne lépp lu nëbb woon sunu borom dana ko feeñal te ka doon làqatu di wax ne julli na te julliwut bu bis boobaa dana leer naka noonu càngaayal janaba sunu borom da koo farataal ci nit ki bu fekkee ne dafa xas ba ni def naa ko léegi kenn mën ko lijjanti waaye nag bisa ngi ñëw ci kanam boo xam ne lii nëbboon lépp dana feeñ sunu borom feeñaloon kooku la mu daan nëbbu kooku mu yawma tubla saraa'iru nee na mooy koor ak julli ak sangu janaba moom la Ataa ibnu Abi Rabaah wax ci bi muy firi yawma tubla saraa'ir koor mooy xaaju muñ امنا صح نيو خامني بالصبر والصلاه صبر جوجو كور لا نكاي فري واخني كور لا يونس بي صلى الله عليه وسلم دا كل عمل ابن ادم له يضاعف الحسنه بعشر امثالها سنبرم daf ci ak mbaaxam ak jërmandeem nit ki lu mu def bu defee benn bu baax daf ko koy fulal ba mat fukk am na yan nat yu baax yoo xam ne bu ko nit defee sunu borom dana ko fulal ba mat juróom-ñaar mbir dana ko fay juróom-ñaar yoon waaye sunu borom ni ba mu des koor koor nag moom man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp ndax nit ki mënut lu weesu bàyyi ak lekkam bàyyi ak naanam ngir man daal di wax ni kooku moom maa koy fayal sama bopp daal di wax ni ku woor ku ne am na ñaari mbégte yu la sunu borom dencal benn mbégte bi mu ngi feeñ ci fi ngay doge xam nga ni nit bu wooree fa muy doge dana am mbégte mum fa yëg waaye mel ni mbégte mi ci des nag ma ngi koy amee fa muy dajeeg borom saa bu dajeeg borom dana xam la koor daan jëriñ am na xadis boo xam ni pakk boobu ma waxoon léegi ci benn xadis bi euh, yonent bi boole woon fa koor ak sarxe ak taxaw guddi wax ni koor pakk la sarxe dafay dafay euh, koor pakk la buy dox sa diggante ak mooy yàlla sarxe dafay far ñaawteef bu nit ki defoon taxaw guddi dinaa fi lay dafay far ñaawteef bu bu nit ki defoon mu wax ko ca xadis mu Muaaz ibn Jabal waaye dafa am beneen xadis boo xam ne dafa boole koor ak muñ ak sarax lu ci ne mu jox ko cër boppam wax na ni koor pakk la moom dafay tox diggante nit ki ak def lu ñu koy tere waaye muñ ak leer la daal di wax ni sarax sarax nag aw lay la ëllëg layu nit ki la dina ëllëg ci kanam suñu borom yonente bi daan wax ni yéen yéen waxambaane yéen gone yu góor yi ku ci mën a denc soxna ku ci am kàttan goo mën a denc soxna na nga denc waaye ku ko ci mënul dénk naa la nga bari looy woor ndax koor dana dox sa diggante ak lu bari ci ay ñaawteef dana dox sa diggante ak lu bari ci ay xememteef yoo xam ni bànneex moo lay puus ngay am xememteef yooyu kon daana wax ni yéen mbooleem waxambaane yi dénk naa leen ku ci mën a denc soxna na ko gaawe waaye ku ci amul kàttanu denc soxna na nga bari looy woor ndax dana la fegal lu bare kon koor bokk na ci li gën a mën a nit ci mu téye bànneexu bakkanam Ibn Mas'ud wax na ni yonent bi daanañ ko gaaral alxuraan ci bépp weeru koor waaw weeru koor wu ne danañ indiwaat alxuraan mu mel ni liñ ko koy woon mu nafaraat ko waaye at mi mu defee nag weer woowu lañ ko ku ci andil ñaari yoon kon weeru koor weeru muñ la weeru muñ la la ko waral mooy ñiy woor danañ muñ ba duñ lekk ci heure yi ñu koy soxla danañ muñ bëgg naan te duñ naan kon weeru muñ la koor it ni ko yàlla farataale ci nun noonu la ko farataale woon ca xeet ya ñu jiitu woon kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum boo demee ci tafsiru ibnu jarir at tabari dafa wax ni ñanu jiitu woon dañoo farataaloon ci ñoom weeru koor ramadan bii ñuy woor ñun moom lañu ñu farataaloon ci ñoom comme nii ñu ko farataale ci ñoom ibnu jarir fi suñ borom di waxee ni waa an tasuumu xayrun lakum ngeen woor moo gën ci yéen foofu suñ borom dafay nattale woon jëkk uh, muy farataal weeru koor yi ci ñun jëkk muy doon force dafa doonoon coobarewu rek muy ku man wooral ku mënut bis bi nga war a woor nga jël aw ñam jox ko ab miskin lele ab miskin loolu mooy li jëkkoon am jëkk weer koor di am waaye nag bi suñ borom mayee loolu it nga xam ni farataalegul ci nun ci force suñu weer weer wi it ni woon dafa waxoon ne waaye nag waa anta soomu la ko mooy ku man wooral kum kum neex it mën ngaa jël aw ñam lele ko ay miskin waaye naka jëkk nag neewoon na waaye nag koor gi moo gën ngeen woor moo gën nit ki bu wér dee ci biir war ko mbaa mu nekk ci ab tukki sun borom may na ko mu bàyyi bis yi mu waroon woor ci jamono wéradi gi mbaa ci jamono tukki bi ba ci yeneen bis beneen bis bu wéree yeneen jamono bu wéree mbaa mu ñibbi si ci tukki bi bàyyi ba yeneen jamono bis yi ko rëccoon ci weer wi mu fay ko ci bis yooyu loolu sun borom may na ko ci ak mbaaxam ci biir maye googu nag borom xam-xam yi wóote ci ne waaw ndax kiy tukki dañ koo may rek mu bañ a woor bàyyi koor gi ba yeneen jëmmi jamono wala day force ci moom am ñoo xam ne dañoo àggale ndigal li ci kuy tukki wërta woor xas na bay tukki rek koor gi euh, dog koor gi force la ci moom dafa war a dog ba yeneen jëmmi jamono am ñu ne déedéet dañ ko ko may rek ngir jàpp ndalal ko waye bu fekke man na wor bu ko neexee mën na wor ci biir weeru koor loolu ay wote amna ci ci borom xam-xam comme lima ma legui ni koor muñ lay tek ci ay béréb ni diko tuddé wéru muñ kon muñ gogu war nañu xam lan lay tekki deug deug ñu xam tuuti ci ak muñ ak ñor gum ñor ci nit ki mu doog a war a mën a taxawal def li ko boromam digal mu mel ni muñ kàttan la bu yàlla defal nit ki di ko def ci ruug doomu aadama muy defar ay mbiram ci biir ak ci bitti am na ku ñuy wax al jundub ibnu muhammad dañ koo laaj ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy nga góox lu weex xat te du feeñ ci sa kanam lu weex xat nga góox ko te du feeñ ci sa kanam muñ mooy ñu di la def lu la metti te du doo wonk sa kanam sax desu ko ci xam ki mën a muñ dëgg dëgg noonu lay mel am na ku ñuy wax zone noonu laaj nañ ko ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy sori sori yi ñu lay tare ak bu dara mettee nga dal jamonoy ñàkk nga feeñal ak doylu loolu mooy muñ ñàkk lool te kenn du ko xam ci yow dara metti lool te kenn du ko xam ci yow muñ ba li ñu lay tere nga fas yéene doo ko def loolu mooy muñ am ñu ni muñ mooy dara di metti nga jàppe ko na ngay jàppe lu neex loolu na day mel ni dafa xaw a jomb nii waaye nag am na ndax sëriñ bi ci jamono yu tukkib géej gi da daan sant dafa nekkoon ci ay métit waaye ci biir métit yooyu yépp ni waxuma la sax mu yem ci muñ ko nii waaye ak cant la ci daan boole ngir xam la cay mujj kon ndekete am na ci ak muñ am na ñoo xam ne sunu muñ àgg na ci ni ñi muñe lu metti lu neex nañ koy jàppe rek lu naqari la bu ñëwee jàppin woowu lañ ci am mooy lu lu metti ñëw nga di ko muñ yemoo ci muñ gi ñàkk koo jàmbat waaye dañ cee boole di sant sunu borom ci def teg gim teg loolu loolu ab martaba la boo xam ne des na càgg kon muñ dafa doon ci xeeti jaam yàlla yi ndax yàlla dafa digle tere lim digle mu dige ci xéewal lam tere it mu tëkkoo ca ci ay naqar waaye nekk te ak jàmm yàlla dëgg ci ñaari tomb rek lañ koy tënk mooy bu xéewal ñëwee nga sant bu lu naqar ñëwee nga muñ ko kon suñ borom dafay xool jaam bi jamono bu ne ci diggante ñaari tomb yooyu mooy bi mu ko defalee xéewal mu ngi koy xool ba xam ndax sant na ko ca anam gam ko gam war a sant waaye bi mu ko tegee lu metti it dana ko xool ba xam ndax dana ko muñ ca anam gam ko war a muñ ndekete kon ak jaamu yàlla génnut ñaari tomb yooyu muy muñ ci jamono bi muy naqari ak sant ci jamono bi muy neex dañuy wax Ibrahim alxawaas nag moom dafa tënk ak muñ rek ni mooy sax ci attey alxuraan ak sunna jamono bu ne ngay xool li alxuraan ak sunna atte nga di ca sax te dëggal ca loolu moom bu loolu mooy ak muñ muñ nag day ñaari xeet am na muñ bu ñuy tuddee sabrul kiraam am muñ boo xam ni sabrul li am lañ koy tudde bu ñu xoolee dinañ gis ni nit mënta ñàkk muñ nit ku ne rek mënta ñàkk muñ moo xam nit ki ab jullit la muñ googee mu ciy séentu payug yàlla walla mu doon ab yéefar waaye fokk yàlla teg ko loo xam du ko mën ñàkk muñ ndax da ci du am kon muñ moo tax ñu séddale ko ñaari xaaj def ko sabrul kiraam te mooy muñ gi ab jullit di muñ dara ak sabrul li am it eh, muy muñ gi nga xam ni yàlla dana teg ab yéefar lu ko naqari mu di ko muñ te muñ googee ñàkk koo sañ a bañ a tax mu di ko muñ kon ñaari xeeti muñ yooyu moom waaye muñ ga ci gën mooy muñ gi nga xam ni nit ki daf koo muñ ci rew nga xam ni loo teggi ba noppi tegoo ko te mooy lu mel ni weeru koor ñëw léegi mën ngaa làqutu lekk ba regg naan ba mandi waaye defoo ko nga muñ xiif boobu muñ marwoo wi te yàlla képp tax muñuk coobarew googu mooy sabrul kiram sabrul li am nag mooy muñ gi nga xam ni ab yéefar buñ ko tegee lu ko naqari pexe amu ca mu bàyyee ko noona loola tekki moom la ñuy tudde sabrul li am mooy muñ mooy nit ci boppam dafa mënta ñàkk muñ rek benn nag muy muñ goo xam ne daf ko coobarew wala muñ goo xam ni euh, force leeruñ ci moom suñu ko bañ kon jullit bi liñ bëgg ci moom mooy muñ goo gi nga xam ne dañ koy coobarew Aboubacar ni Siddiq radiallahu anhu ci jamono bi mu wéradee ngir rek xam le muñ ak ni ko saxaaba yi daan defe ñoom ni ñu ko daan dunde ñëw nañu ni ko ndax duñu la indil ab docteur mu xool la mu ni leen docteur bi xool na ma ba noppi ñu ni ko lu mu la wax mu ni docteur bi li ma wax mooy li ma neex laay def inni fa'aalun lima uridu ñu xamee ci ni kon ak muñ gu rafet la gu muñ digganteem ak boromam xam ni ab dogal agsi na mu nangoo ko noonu mu ko nangoo moom Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu dañ ko ne ndax duñ la indil ab docteur mu xool la mu ne docteur bi xool na ma ba noppi ñu ne ko lum la wax mu ne docteur bi nee na li ma neex laay def inni fa'aalu lima uridu Omar ibnul Xataab daana wax ni ñun de la gën ci sunub dund ci ak muñ lañ ko gese ci muñ lañ amee li gën ci sunu dund ali ibn abi talib radiyallahu anhu da daan wax ni muñ ci ak ngam yàlla la bokk da daan wax ni muñ mi ngi mel ni ci aw yaram bopp ci aw yaram bopp nag saa buñ ko daggee yaram warat daan ni muñ ku mënta muñ amut ngam. daan yëkkati kàddoom ci kaw di wax ni ku mënta muñ amut ak ngëm loolu Ali ibn Abi Talib daana wax ku ñu wax Suleymaan ibnul Xaasim daana wax ni jëf ju xam nañu na ak payam di toll ba mu des muñ muñ mooy li nga xam ni bu ci sunu bu ko sunu borom dee fay du ko nattale dafa wax ci alquran ni innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaabi te mooy ñiy muñ dañuy fab euh, seenu pay di leen ko sotti te desu ko nattale loolu euh, daanañ ci nettali xissa bu sëriñ Abdou Lahad daan wax yaakaar naa sëriñ Tuubaa moo ko daan wax sëriñ moo daan wax ni ñetti xeeti pay daan wax ni jaamu yàlla ak topp yàlla ak liggéeyal yàlla daal ni moo waral mu indi jasaaw ak sawaabu ak ajru daal wax ni jaamu yàlla mooy yi yàlla farataal ci yow mooy julli juróom ak weeru koor ak natt asaka ak aj màkka ak yu demee ni ñoom loolu benn boo ci def ci mbaaxu suñu borom dana dana la ko fulal fay la fukk dana la ko fay la fukk ni topp yàlla nag mooy nawaafil yi naafil la ginnaaw bu farata jàllee la ngay defaat ci lu baax loolu la ñuy tudd topp yàlla daal ni loolu ak payam mooy sawaabu daal dina sawaabu nag mooy saw bu rek mbubb lay tekki daal di koy misaal ci ni e, nit yàlla yi nga xam ne dañoo bari lu ñuy jaamu yàlla karaama yi ñuy am ba bu ñaanee sunu borom mu nangu ko ñu dem ba mel ni ko am ak cër ci ngóoru yàlla gi loolu mooy saw bu daal koy misaal ni mi ngi mel ni jaam bu topp ab sangam ba sang ba gërëm ko summi mbubbam solal ko ko daal ni loolu benn boo ci def mën nañ laa fay ba ci juróom-ñaar téeméer benn boo coobareew ci xeet naafile yi mën nañ laa fay ba ci juróom-ñaar téeméer ni ajjuru nag euh, liggéeyal yàlla dana wax ne jaamu yàlla ak topp yàlla ak liggéeyal yàlla daal di ni liggéeyal yàlla nag moom ci nit ñi lañ koy def te mooy jaxasoog nit ñi di leen dimbale ci seeni bëgg-bëgg la lay naqari ci ñoom nga di ko muñ loolu muñ googu tax na la ca suñu borom wax mooy innama yoofa sabiruna ajrahum bi xayri hisabi te mooy ñooñu bu leen dee fay moom du ko nattale day tibb rek di leen xëpp loolu tax ibnul xaasim wax ni jëf ju mu doon xam nañ ak payam ba mu des muñ muñ moom xameesul ak payam lu fab rek la di sotti am na kenn ci nit yàlla yi koo xam di daan fab aw këyit def ko ci poosam léeg-léeg mu génne ko xool këyit wa ña nga ca bind wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ayunina da dangay muñ eh, ci àtteb sa borom ndax noo ngi lay gis Umar ibn Xataab moom àggoon na ci marché ba daan wax ni cant ak muñ de bu fekkoon dañoo doon ñaari gileem yu ñuy war du ma faale bu ma ci téye ak bu may bàyyi ñoom ñaar ñëpp laa yemale mooy ñoom ñaar ñoo tolloo ci moom degré la naqari mu di ko muñ ak la neex mu di ko sant ñoo tolloo ci moom benn degré moom moo ibnu Xattaab radiyallaahu anhu am na ci nit ñu baax ñi kuñ daan wax Muhammad ibnu Sib ibnu Sab moom lu ko metti bu ko mësaan dal day wax ni aw niir wu fi jaar rek la lee mu def moom noonu la daan gise aw niir wu fi jaar la te lee mu dem kon weer weeru koor ci ponk yi juróomi ponk yi ñu jëkk wàccee ci la bokk euh, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni buniyal islaamu ala xamsin islaam ñu ngi ko tabax ci kaw juróomi keno ba ci njëkk mooy shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ba ca topp mooy iqaami sala mooy taxawal julli ba ca topp mooy itaa il zaka ba ca topp mooy sawmu ramadan wa xajjil bayti mooy juróomeel bi kon koor ci juróomi ponk yooyu la bokk te ku mënta muñit doo ko àttan kon muñ googu di ci mënta ñàkk dama ragal ni li ci des mooy li jëm ci Sëriñ Tuuba ak ni mu jàppee woon weeru koor ak ni mu ci daan doxe loolu dañ koy bàyyi jëmee ko ci dërsi yi ñu jëm ci kanam tuuti di tàggu mbokk yi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.